dañu bëgg def opération bi nga xamante ni si dañu cibile bépp place yi nga xamante ni si public nit ñi dañ fay dajaloo dajaloo bu bëri hmm? te loolu aussi daf ci bokk gaaru ceer yi gaaru yi boo xoolee gaaru ceer bi fii li fiy jaar ci nit par jour li fiy ñëw di dem par jour dafa bëri donc yeneen gaaru ceer bi aussi noonu la mel bon te xam nañu virus bi aussi nit ñi lay àndal di déplacé wu donc bu fekkee vraiment bëgg nañu euh, freiner wala bëgg nañu wàññi circulation virus bi il faut que milieu yu mel noonu ñu koy traité régulièrement

Euh, gis nañu aussi que ni vraiment cas grave yi nga xamante ni jamono bi amatuñu ko sax ah bon léegi ñu euh, ngi yokk.

xam ne foofu dafay bëri ay élèves yooyu ñu jëm leen traité aussi. des nag mooy population yi population yi nag bon vraiment euh, kenn ku si nekk aussi yaa war jël conscience yaa war xam ne lii bu ma ko jëlee ah mun na indi lor sama nawle wala mun na indi lor sama biir kër nga jéem a fexe ba takk sa masque ba rax sa xam nga loolu je pense loolu bu ñu ko defee ñëpp am conscience boobu yàlla mun na jàppale ba deuxième vague bi nga xamante ne si ñu koy ragal vraiment du am Sénégal.